Fatick Nicolas ñu ngi lay ziar. ñu ngi nangu ziar di leen ko delloo. maa ngi si jàmm. di sant bu wér. bi tey dañoo kontaan si torop su diggante ak ñun nan la demee. waaw mbir mi ñuy def dañ cee yàgg te am na jamono yoo xamante ne àdduna aussi da ngay fàttaliku ndax dina am moment yoo xamante ne presse bi da nga leen di soxla lool comme ñoom niñ lay soxlaa lool xëy na nag euh, yàlla dogal na. li ñuy liggéey nii ku ne def ci am wàll ku ne def ci am loo xamante ne partition bu mu war a joué mais suñu partenariat rek dañ ko war a teg aussi ci dëgg ci li ñuy wax partenariat gagnant gaña seen liggéey ñu bàyyi leen ngeen def ko ci li ñuy waxtaanee ba juboo ci parce que sans yéen ñun duñu dem sans ñun aussi yéen du ngeen dem kon rek la. diggante kii toog di sama papa Père Khadim Samb. waaw kii moom lépp luy kàddu gi fu mu toll nii daanaka presque moo ko yor lépp lu ngeen bëgg a xam ci man rek bu leen ko waxee mel na ni jàppaleen ne loolu moo am. combat bi a rëy Sénégal ngeen tëgg ko disposition yi ci war yëpp est-ce que yéen a ngi koy waajal bu baax a baax ndax combat bi gën a rëy ci àdduna bi pour l'instant yéen a ko tëgg. waaw liñ tëgg nii ñun duñ ci gan yaakaar naa événement yu gën a mag Sénégal fii yàlla dogal na suñu loxo la ko jaarale kon li ñuy def xam nañ ko jàpp leen benn affaire Modou Lo Ama Baldé dinaa ci def loo xamante ne yàlla rek moo dax may wax dinañ ci gis loo xamante ne nit musu koo gis ci laam. ay xeetu innovation. innovation moom waxuñu ko ndax man moom eh, tollootuma fa ma naan damay innové ci làmb déedéet tollootuma foofu yaakaar na mag laa ci làmb léegi loo def vingt doo naan ay nii laay def ak nii bu nga yéen ngeen ibbi seen bët ngeen xool déjà le trois juillet ci Gambie buñ demee di ngeen gis incha allah. jotul tamit mbëri seen signature yi ñu koy def entrée parce que yaakaar naa marchandise boo ko yoree di ko jaay. day jar est-ce que tollu ci ngeen jaay ko bañ koo defati garab. kay Modou Lo Ama Baldé kay seen si waa sa faas fay la loolu kay amul sa werante da ngay fay. jotul tamit nga wut force de l'ordre bu doy yebal leen kër Ama ñu accompagner ko andi ko signature bi ak Modou yëpp bu ñuy delloo ñu yóbbu yaa ngi ciy xalaat. waaw xam nga mooy li ma la expliqué sànq dama bëgg nga bàyyi xel ne événement yu bare yu mag tëgg nañ ko fii xëy na nag contexte dëkk bi moo changé tuuti. parce que xëy na jamono yi ñuy tëgg événement yooyu xëy na ñaari télé moo fi amoon ak yooyu mais léegi ak presse écrite bi presse en ligne bi boo rayee weñ sax léegi Sénégal bi yëpp yéeg ko du dëgg donc euh, loolu aussi dañ ciy sant yàlla parce que day gën a ñoŋal rek liggéeyu presse bi mais ñun daal disposition yi war pour combat bi tegu ci yoon côté sécuritaire côté événement dinañ ko jël ñun ak staffu Luc Nicolaï en co li ci des nag ñun duñu yàlla dañ ko bàyyi ci loxo borom bi ñu seetaan ba xam. fi may jeexale absent wu Ama Balde daa bokkoon ci contrat bi wala daa war na ñëw rek tey bàkku si. pour tey nii noo tey Ama li ma seq moom du contrat honnêtement dama ko jël ne ko yow mu ne ma père ma ne ko waaw mu ne ma lépp loo ma woo dama ciy taxaw donc mu ne ma day ñëw di dinaa leen wax tey benn affaire aussi entre nu Ama tey am na moment boo ne bu fi ñëwoon xëy na mënoon na demee neneen nañu waxante dëgg ndax li nekk ci stade bi tey du ay caaxaan nañu waxante dëgg donc euh, yàlla baax na daal li ci kanam rawuli bët nañ ñaan yàlla lépp tegu ci yoon ci kanam incha allah. maa ngi lay jaajëfal presse bi ñu ngi lay jaajëfal di kontaan. ñu ngi bég ci yéen. quatre daadab bi mooy site bii nga site bii lay tàllal micro dañoo bëgg liggéey ci combat Modou ak Ama. waaw mooy li may wax rek xam nga dama la wax ci sa njëlbeenu wax bi ma ne la lépp lu ñuy def nañu def partenariat gagnant gagnant man bañu ñu ànd liggéey mais ànd liggéey bi dinañu toog ma ne leen yéen ñëpp lii ak nii ak nii la ñuy àndee leneen war ngeen def ko ak man la war ak yéen ma def ko ànd bi rafet. ànd bi tegu ci yoon ñu mën a liggéey fii ba Ama Baldé Modou Lo ngeen ànd ci ak man ñu liggéey ko lépp loo am war ngeen ko ci am ngeen am ko ci fi ngeen ci war a yem ngeen yem fa man fi ma warloog yéen ma def ko soobee yàlla mais am naa yaakaar ne dinañu juboo ci ay contrat ci ay kàddu ba nga xamante mais daal gëm naa ne dinañ ci liggéey moom man gëm naa loolu jërëjëf am naa ci yéen ñu ngi lay waaw buur bala may wax dara damay am mbégte di am contentement ndax li ngeen def dafa rëy man laa doon wax léegi da ngeen ma fàttali ay jamono ci ginnaaw lii dañ ko féddaliwaat ndax lii lañ doon liggéeyee fu ma dem ngeen yëpp ngeen ànd ak man fu ne ànd ngeen fa ak man lii dama koy am mbégte man nag du ma doomu Mbuur rek doomu Sénégal laa ah fu ma dem ci senegaal nii lay demee mais jëmm ji taxaw ma bëgg ngeen xam benn affaire bu baax a baax musuloo ma dégg vingt et un ans ma tuddee politicien lam génnal ma ko image musul am mais moom da di benn jëmm boo xamante ne euh, li ma gis ci moom ak li ma dégg ci moom ak conviction personnelle yi ma am ba tuddee ko làmb dafa am lu tax te ci kanam tudd di ngeen comprendre li ma leen wax kii c'est l'homme de génération di ngeen comprendre li ma wax ci kanam teral nañu teral nañu tax a mën bés ah? lu lu la tax a mën bés stratégiquement say façon de xam nga mu ne naan wa alni lil muttaqina mafaasan waaw ah. ah, boo ko xamee ci alxuraan xamalu tax suñu borom dafa am loo xamante ne moom moo ko moomal boppam amul doomu aadama du ko def ci nit ñun nag lii ñuy liggéey ni ku yaakaar ne ñun la yaa ngi juum yàlla la suñu borom. de la paix Cheikh Fall Luc Nicolaï fête de la jeunesse Cheikh Fall Luc Nicolaï saa bu réew mi tollee ci jalti jalti lig bu yëngatoo rek réew mi daal xale yi bég. loolu moom la yàlla dogal dañ ciy am mbégte di leen jox scoop nag. premier face a face Ama Baldé Modou Lô le 3 juillet stade Bakao bu arbitre baa ngi noonu. ak Serigne Ndiaye doo bu Faas. Ndiaye si pële ngi noonu. notre modèle mu ngi toll ci. arbitre sifflé na ñu ngi ci samedi. arbitre sifflé na Serigne Ndiaye numéro 2 doomu Fass bi à gauche. fii Yakara Misal doomu Badiane bi doomu Malika bi à droite. ak lacrymogène bu Badiane. ndeysaan Serigne Ndiaye jiital tànk ndijoor. ñoo dem final poids jiital tànk càmmoñ. lacrymogène Serigne Ndiaye numéro 2. waaye lacrymogène ndaanaan la. ndax compétition bi ñu fa nekk ponkal la. Serigne Ndiaye numéro 2 lacrymogène. Serigne Ndiaye dox na ci koom. Serigne Ndiaye numéro 2 da ko bëgg a woo. Serigne Ndiaye tey ngaa tey. Serigne Ndiaye dafa ndànk ci xale bi dafa mën a bëre comme yow. Serigne Ndiaye yaa ngi bëre xale bu mën a bëre. Serigne mu daanu. da koo dóor wala mu daanu. de. da ko doon de. kaay leen. xanaa booy loxo loxo Serigne Ndiaye bi daa diis. ay Adama kaay. ñëwal Adama mu gaaw. ndeysaan mu gaaw Adama. ndeysaan.